daleen ak jàmm ci jamono joo xamante ni coronavirus mu ngi lëmbee réewum Sénégal soxna Aïda Diallo moom ak Junior Cissé ñu ngi nekk ci ab guerre bu metti soxna seex Béthio si di njiital Aïda Kon dafa porte plainte Moustapha Bassirou Lo ñu gën ko xam ci turu Junior Cissé di doom ci Moustapha Cissé Lo Aïda Diallo nag li muy toppee doomi Moustapha Cissé ji moo di diffamation ak ay injure publique maanaam di ko waxal lu amut ak yëkkati wax ju ñaaw teg ko ci deram division des investigations criminelles. xanaa bu ma wax loolu lu ma bëggul wax man am na lu may ragal wala lu may peur wala lu may xalaat ci wax ci li ma bëgg a wax ci sama point de vue mbalit Diallo laa wax ñooñu ko topp noonu liste bi ëpp nañ dix huit personnes ñun li ñu amagun ci dix huit personnes lay toll suñu rëkkalewul bientôt ci fan yu néew man dinaa def point de presse pas live ah wala ay audio point de presse laay euh, def invité toute la presse nationale et internationale tudd waaye ca kanamu enquêteurs yi doomi Moustapha Cissé Lo ji weddiwul benn yoon li nga xamante ni moom la ko soxna Aïda Diallo di jiiñ waaye xamle waale ne tamit ni soxna Aïda Diallo porté wu ko plainte moom kese ndax ku ci mel ni Serigne Fallou Fall Mbawoor Diène Mack fay Moustapha Messere ak Serigne Moustapha Diakhaté ñoom ñëpp la soxna Aïda Diallo porté plainte ndax kat ñoom ñi ñëpp tamit dañoo yëkkati woon ay menaces de ak i saaga teg ko ci deru Aïda Diallo. bu bi nekk ci palais de la justice woo téléphone ne ma daf ma soxla tey ci 11 ma ne ko incha allah dina ñëw wuy si ko ñoom it ma leen di remercier di leen féliciter ci seen liggéey ndax def nañ ak man liggéey bu am solo ndax jàpp naa ne waaye bu ci nekk ci Sénégal rek su nit demee kalaame la fenn euh, suñ la wooyee war ngaa mën a dem wuy ji waaye ñi ngay wuy ji it war nañ laa jox sa àq ak sa yelleef effectivement loolu am na sama diggante ñoom maa ngi fa dugg treize heures euh, ba quinze heures et demi wala seize heures moyen ci laay soog a génn ci biir euh, ci biir commissariat bi déglu nañ ma ci benn vidéo buñ ndaw soosu nga tudd Mbalit Euh, nee na dama ko def def ko menace de mort muy ay kàcc. ndax menace de mort dama jàpp ne mooy dinaa rey nit ki wala yow dinaa la rey suma la jàppee mbalit day kàcc kàcc yu mag a mag a mag ci la nekk. ndax vidéo bi ma def assumé naa ko maa ko def. Euh, ki nga xamante ne nii mooy suñu yaakaar di Cheikh Mouhamadou Mountakha keroog bi mu génnee ne ko bul tegati tànk ci man bu ma ñëwati seet si keroog laa génn nag ne leen nag yéen ñi nga xamante ne nii yéen a nekk ci ginnaawam di ko bay bayal ak di ko jàppal tànk xam leen ne ñoo ngi ci seen kaw la ma ca teg ñëpp dégg nañ ko vidéo ba trois minutes la loola ak léegi yaakaar naa après quatorze kii bi Saint-Valentin boobu mu doon féete euh, la woon suñ toogee ba tey ñu convoqué ma ci damay sant yàlla euh, ndax jàpp naa ne fa ma newoon tey laa fa gën a nekk mooy lépp loo xamante ne nii day bëgg-bëggub Seexul Xaddim muy Cheikh moom moom Mouhamadou Mountakha ci kaw suuf lépp luy bëgg-bëggam su ma ko yëgee wala ma gis ko gisatuma bëgg-bëggu keneen te xam naa ne li mu nekk muy Mbalit Diallo du lu sëriñ bi bëgg du lu sëriñ bi gërëm du lu lislaam bëgg du lu lislaam gërëm kon dama jàpp ne position bi sama sëriñ nekk muy Cheikh Mouhamadou Mountakha foofu laa mooy foofu laay nekk loolu moo taxoon ma def vidéo ba alerte ñi nga xamante ni nii ànd nañoo moom te jege sëriñ bi ñu leen di tuddee ay kilifa message ba ma doon lancé ñoom laa ko lancé kon tey su wëlbati koo dem tu def ab plainte plainte bi dinaa ci ñëw ndax du man dong la porter plainte ñi mu déedéet plent ñëpp dinaa ci ñëw su demee defu plainte ne dama kaa menace dama koo def menace de moor day kàcc Mbalit Diallo. li mu wax ay kàcc la mais koo xam ne dangaa bon bañ jël la sànni ca mbalin ma di nga jéem a xool fooy putuxlu pour dellu siwaati nit ñi jàpp naa ne yoonu murit duñ ko may loolu bi ma demee assumé naa li ma wax ci trois minutes yi ci vidéo bi amul lenn lu ma ca weddi waaye leeral na enquêteurs yi na leen moom Mbalit Diallo bis nekk tey na xam ne maa ngi ci kawam tey jii laa jël décision pour jàmmaarloo ak moom. Ah, wax nga ko enquêteurs yi waaye wax naa ko enquêteurs yi. wax naa ko enquêteurs yi nee naa leen bis nekk tey jël na samay arme te dinaa jàmmaarloo ak moom moo xam audio la. moo xam ay vidéo la lu mu mën di doon dinaa ko jël di ko xëpp ci kawam waaye jàpp naa ne kooku kuñ waroon a dem arrêté la ndax amoon na fi procès procès procédure boo ne justice ba léegi leeragul li xewoon Madinatu Salaam tey dafa war a dem gën ci lu ko ay nit wax mu di leen ci porter plainte Moustapha Mbacké Lo ma nga ca plainte ya Serigne Fallou Fall Mbawor ma nga ca plainte ya Diène Mack Faye ma nga ca plainte ya Moustapha Messere ma nga ca plainte ya euh, Moustapha Diakhaté ma nga ca plainte ya ña nekk ca plainte ya bari nañ mais alhamdulilah ndax na ma gis ñu plainte leen jàpp naa ne duñ ay murit yuy dellu ginnaaw mbirum ay Aïda Diallo fa ma ci nekkoon tey laa ci gën a nekk su amee benn murit bu war a wàcc liggéey yal na doon man Moustapha Mbacké Lo yal na sama bakkan des ci kii kon ay mbirum kaso dama ko jélale tey su ma waree fanaani kaso tey du ma benn minute du ci tegu suñ bëggoon maa jéem a négocier sax dama naan leen damay dem kaso ci mbirum ndaw soosu mbalit jàlloo nit ku yéesu la su fekkente ne nag pare nañ man pour noppiloo ma ñoom dañ naa may ay micro yu ma waxee te dinaa wax ba àdduna bépp xam ne wax naa lii moo xew ma dem naa déglu ji leen déglu nañ ma bàyyi nañ na ma ñibbi xëy na ñeneen ñi ci des dinañ dem wuy ji ñeneen ñi ci des di dem di wuy ji maa ngi leen di ñaan dik suñ ko tuddee jàpp leen ne ay doomu aadama ñoo fa nekk waaye dig bee ma dem ñee ma dem wuy ji tey ñu man seenub liggéey lañ ñu xam seenub liggéey lañ kon maa ngi jaa maa ngi ñaan ñi nga xamante ne nii tudd nañ leen ci ay mbiri plainte ci mbirum mbalit jàllo mu bon moomu ba yées na ngeen dem wuy ji te ngeen xam ne ña ngeen di fekk ji kat man jàpp naa ne ñu xam seenub liggéey leen teg nañ ko ci yoon kon ñoo ngi leen sant di leen gërëm ñu fàttalikoo nag ki di xalif général des mourides sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke dafa santoon Aïda Diallo ngir mu dem ànd ak Serigne Saliou Thioune di taaw Cheikh Béthio Thioune ndax kat jigéen baaxawuta nekk xalifa sorti boobee nag mi ngi ko defoon ginnaaw ñu ko yëgalee woon ni soxna Aïda Diallo day organiser ay cant di wax naan mooy xalif cantaako ni maanaam mooy ki remplacer Cheikh Béthio Thioune depuis sorti boobee ba léegi nag ñu bëri ci taalibe yi murid yi dañoo mere soxna Aïda Diallo lool ndax kat dañoo jàpp niñ dafa ñàkk taalibe te jëfewul li nga xamante ni moom la ko Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des mourides digaloon ba tax nag ñenn ñi di génn di ko menacer de mort